xaaj bu njëkk bi ci ñetti xaaj yi yàlla daan na nit ndax dégg dem tey dinañu waxtaan ci li xew ginaaw bi yàlla génne aadama ak awa toolu àjjana bi ñu ci tegee tuuti aadama ak awa am ñaari doom yu góor ñu tuddee kenn ki kayin keneen ki abel bi xale yi demee ba doon ay mag ñu indi ay sarax ngir màggal yàlla kayin taaw bi sàkk ci meññeefu toolam ngir saraxe abel rakk ji saraxe am xar yàlla nangu saraxu abel waaye nanguwul bu kayin kayin daldi mer lool ci téere njalbéen ga bind nañu ci aj sax ji ne kayin lu tax nga mer te lu tax sa xar kanam lëndëm soo defee lu baax sa xar dina leer soo deful lu baax bàkkaar a ngi ci sa bunt di la tëru ni rab te di la wut waaye nanga ko noot waaye kayin bañ a déglu yàlla mu bañ a tuub gannaaw gi ba ñu demee ca tool ya kayin di rey abel yàlla mbugal kayin ndax bàkkaaram yàlla ne ay toolu kayin dootuñu meññ te kayin dina wëndaalu ci kaw suuf adama ak awa am jeneen doom ju góor noonu mu wutu abel ñu tuddee ko set ganaaw gi adama ak awa am nañu yeneeni doom yu bare léegi ma laaj leen benn fan la kayin ak abel ak askanu aadama yépp juddoo juddoowuñu ci toolu àjjana moo tax teqalikoo nañu ak yàlla ñaar lu tax yàlla nangu saraxu abel ndaxte abel dafa rey mala tuur deret ji loolu won na ne abel nangu na ne bàkkaarkat la te yelloon na dee abel gëmoon na ne yàlla rekk moo ko mën a musal ñett ndax deretu xar mi moo fay bàkkaaru abel déedéet abel dafa wéeru woon ci yàlla ngir mu musal ko ci mbugali bàkkaaram gëmoon na ne yàlla dina yónnee musalkat bi ñeent lu tax yàlla nanguwul saraxu kayin kayin dafa bëggoon a màggal yàlla ci pexey boppam nanguwul ne bakkalkat la te yàlla rekk moo ko mën a musal deful sarax bi yàlla santaane dafa def sarax bi ko neexoon nan dafay màggal yàlla juróom loolu lan la won ci naka lañuy ñuy def ba neex yàlla war nañu gëm yàlla te déggal ko ngir neex ko juróom lan la kayin def bi ko yàlla artoo ngir mu def li jub kayin dégluwul yàlla dafa mer daldi rey rakkam juróom ñaar naka la yàlla mbugalee kayin ay toolam meññatuñu woon boole ci muy taxawaalu ak di wëndaalu bërëboo bërëb juróom ñett lan lañu war a def bu nu yàlla artoo ci kàddoom war nañu tuub te def li yàlla wax juróom ñeent lan la yàlla baaxawaat aadama awa ngir wutu abel ak lu tax yàlla mayaat na leen jeneen doom ñu tuddee ko set noonu musalkat bi dina askanoo ci moom